di delluwaat ci tafsir alquran bi ñu baaxoo def ci weeru koor ci ci juma an kappa euh, ki leen koy defal mooy seen mbokk seen xarit euh, Umar Diallo imaam Umar Diallo euh, di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal dëgg ak topp bi jaay Seydou sallallahu alayhi wa ñu ngi woon ci suuratul baqara ba léegi ci aaye 208 yàlla nee na baada aouzu billahi min alcheytaani rajim yaa ayuha alladina aamanu udxulu fi salmi kaafatan wala tattabiu xuduwaati cheytaan innahu lakum aduwun mubin waxoon nañ ne yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla udxulu na ngeen dugg fi selmi walla fi salmi ci lislaam kaafatan mboole seen jami sharaa'ir yi ngeen dugg ci sharia lislaam yépp xam ne sharia lislaam ngeen dugg ci di attewu ci lislaam ngeen bañ a attewu ci leneen lu dul islaam ndax lislaam nag amul li ñuy jël mocce bàyyi mocce lisaam soo ko jël da jël lépp ateem lépp nga jël wala tatabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan ñalli seetaan mooy yoon cheytaan yoon yu ndaw yu bokkul ak yoon wu mag wi yoon wu mag wi mooy islaam xutuwaati mooy yoon yu ndaw yi innahu moom li iblis adduwun noonu la mubinun bu feeñ bu bir lakum ñeel leen moom mooy ne noonu mu ngi ko tàmbalee ci aadama alayhi salaatu seen baay seen maam ba léegi tekkiwul mi ngembam mu ngi leen topp te yéen ñépp di ngeen jeex bàyyi ko fi kon kooku mooy noon piir fa in zalaltum ala fa in su ngeen jengee nag ngeen tarxis min baadi ma jaatkum di ginnaaw dikkal na leen albayinaatu lay yu bir ala annahu ci alquran ji xaqun dëgg la fa alamu kon na ngeen xam an allah yàlla azizun aji not la ci nguuram laa yujizuhu sheyun ala intiqaamihi minkum dara du ko lottal dara du ko lottal dara du ko tele du empêché mu fayu ci yéen duma leen dégg nga ku xarañ la ci nguuram waaye xakimun kii teral attee fi mu yàlla tëdd hal yanzuruuna ñoom muñandiku wuñu dégg nga illaa an yaatiyahumullahu ndere yàlla indi leen fii zulalin ci ay niir woo xam ne eh, zulalin ci lëndëm boo xam ne minal xamaami tukkee ci niir wal wal wal wal malaaykatu ak malaayka malaaka yi wa qudiyal amru ñu atte mbir ma su malaaka yi ñëwee ñu atte mbir ñu alak leen wala yàlla yónni len ben niir wo xamne ne niir wu lëndëm lolu amon na liir wu lëndëm te fek mbugal mo ci ne safar mo ci nek mo mo dal di len alak wa ila allah ci yàlla turja'u la ñuy delloo al umur mbir yeb fa yujazikum mu fay len yàlla ne sal lajal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam laajal bani israil su'aalu tabkiit kam aataynaahum ñaata ñaata ñaata aataynaahum lañ leen indil gis nga kam ñaar la dafa am kam boo xam ne kam istifhaamiya am kamil xabariya istifhaam mooy laaj kam istaraytaha walla yu mel noonu kam qariyatin kam min qariyatin bari loolu mooy bari na ci dëkk boo xam ne ahalak naaha ñu ñoo ko alak bii kam nag kam istifhaamiya mooy kam ñaata aataynaahum liñ leen indil dégg nga min aayatin ci kéemtaan bayyinatin bu bir ka falaqil bahri wa inzalil manni wa salwa indi naa leen kéemtaan de ci bani israil ndax maa xotti géej gi xotti géej gi def ci ay pont bi nga xamee ne yone firawna topp na leen ñoom bani israil ba ñu sës ci géej gi man maa xotti géej gi ñu jaar loolu du kéemtaan te fi mu ko xotti foofu amul musul am yoon firawna ak ñoñam ak ñoom ñépp xam nañ fii musul am yoon ma ñëw dóor fa fukki yoon ak ñaar bani israil jaar ci jàll waa aw na ak ñoñam ñëw nañu ba dugg ci ñoom ñépp ci diggan ci dex bi moom boole boole dex bi kon loolu du kéemtaan yàlla ne ma wàcce wàccee laa wàccee wàccee naa leen li ñuy wax man na ak salwa ñaam ñam la ak li ñuy naan ñuy dund ci duñu bey du ñu ruuj du ñu soq du ñu wol du ñu def dara dañuy toog ba heure lu lekk jot rek loolu wàcc ñu lekk ci ba ba suur loolu delluwaat taabal ji delluwaat mu ne loolu kéemtaan la te picc yi ma yi ma indi ñu daldi leen defar ba baax walla ginaar yi ak lu mel noonu loolu rëbbuñu ko du ñoom ñoo ko rëbb de du ñoom ñoo ko euh, kim jënd de jënduñu ko béyuñu ko defuñ dara ma defal leen lool ñuy lekk ba suur loolu di dem loolu kéemtaan la ak yeneen ak yeneen kéemtaan ma moo tax yàlla ne kam ñaata kam ñaata bari na lool min aayatin ci kéemtaan boo xam ne aataynaahum indil naa leen indil naa leen ko ba bayyinatin yoo xam ne yu biir yu leer nañ ñépp xam nañ ko waaye wa man yubaddil wa man yubaddil képp koo xam ne watti na nicmatallahi xéewal yàlla place xéewal nga watti ko weddi min baadi ginaaw maa jaatuhu dikkal na ko xéewal fa inna allah yàlla ah na ngeen xam ne shadidu aji tar la al iqab ni muy mbugale zuji na rafetal nañ lillazina ñeel gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu mooy waa mag rafetal nañ leen alxayaata dunya dund àddina ñoom daal dañ yaakaar ne àddina moo fi ne du tey du jeex dégg nga wa yasxaruuna ñuy yëjji nag ñuy sabote min alladina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu xam lu tax ñu ñu leen di sabote li faqarihim ngir seen ñàkk amuñu alal dégg ka bilaalin wa ammaarin wa suhaybi dégg nga yastahzi'uuna bihim ñuy kawe kawelu ci ci ñoom bil maali ci alal ñun dañoo am alal yéen amu leen alal xaa nga xamu ne dafa am ñoo xam ne alal lañu yaakaar ne mooy nit mooy nite alal mooy tekki alal mooy gor ngor alal moy am yàlla alal moy ki amul alal mom ku amul alal mom considéré wuñ ko ci dara ci alal nak wërseug la yàlla da koy jox julit bi da koy jox nafiq bi da koy jox yéfer bi da koy jox jif bi da koy jox chrétien bi yàlla fay talal wër yabsutur rizqa liman yasha mom moy talal mooy tal alal jox di ko jox ki ko neex waaye du du ngéneel nag yàlla la neex jox la alal du caagéen dangaa ëpp nit ñi doole dangaa mën a liggéey ñi nga ñi nga xam ne dañu am doole sax dañu faral di am alal koo gis mu am alal dafay nekk koo goo xam ne mënul yëkkati saaku saaku boo xam ne bu vingt kilo am alal bu dul jeex boo xam ne borom doole yépp di ko liggéeyal ñii di yenu ay saako ñii di kii di ko romb mu toog mu toog kon nga xam ne affaire bi du ci du ci doole su doon ci doole ñi ñi ngay liggéeyloo am na ñoo ñoo la ëppale yàlla la neex rek jox la ko muy seet ndax dangay sant walla dangay xarab ñàkk gi itam du caagéen dañoo mën a liggéey xanaa xamu ne am na koo xam ne soo ñëwee diis ko tox soxla dafa yaakaar ne da ngay caaxaan ndax moom pour moom euh, da ngay caaxaan soo caaxaanul woon da nga mu am am alal yaakaar ñoom ñoo ko defal seen bopp laa <laughs> ilaha illallah loolu mooy tekki am alal tekki déedéet loolu du tekki waaw loolu wërsëg la te wërsëg wërsëg bi xamoo ndax danañ si duma ëllëg parce que wërsëg bi yépp dañ koy réglé nag dañ koy régler foo ko jëlee loo ci def amul benn dërëm bu nga xam ne dugg na ci sa poos lu dul dinañ la laaj foo ko jëlee ak bi nga ko amee fan nga ko dépensé kooku am na mbir mu koy xaar waaw léegi nag ñun képp koo xam ne aloo amoo alal amoo oto yu daw amoo boo xam ne ay ay ay moomal sa bopp amoo amoo amoo ay magasin amoo ay kii tekki wala amoo compte bancaire boo xam ne dafa fees dell xaaj ma tekki tekki woo nga gis ci famille bi sax ku ci am problème yow ah, li ñu war a wax sax même ah, ñi nga xam ne ñoo am ñoom la ñuy considérer ñi ñàkk moom doonte ñu baax lañu kenn du leen considérer te kii am doo ko gis ci famille bi doo ko gis mu dem jàkk des fois doo ko gis mu dem juma ci famille bi laay wax. am na ki nekk ci kër gi koo xam ne abid la jaamukat la yàlla day fanaane julli du bàyyi waxtu day dem ci jàkk yi juma yi ay kii mais kenn du ko considérer parce que tekkiwul pour ñoom tekkiwul. ndaxte suñ ko laajee mënul faj gàcce kenn moo tax tekkiwul pour ñoom tekkiwul ak ñàkk xam kooku moo tekki nag ki yàlla dimbali nag ba yàlla may la am na am na am na du ñépp am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne euh, sama benn xarit Mansour Dieng dafay ne dafa bare woon lu mu toog ak Baye Gaye Gaye Tamba mu ne xanaa Mansour xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne yàlla di leen may wërsëg boo paree xañ xañ xañ leen boppam ku yàlla may wërsëg ba pare xañ la boppam torox nga parce que alal ji yépp doo ci def doo ci dimbali nit doo ci jëndal nit rabetaay ma doo ko jëndal ordonnance doo ko yóbbu màkk doo def lenn lenn lu baax ci alal ji doo fekk liggéey juma ba ngay def ci sa alal du zaawiya du daayira bi du amul lenn loo xam ne danañ la ko diis ba nga def ci hmm? xam nga alal bi fu mu fu mu fu muy jeexee Hmm? gaa yooyu di def eh, eh, riigu riigu xaw ma riigu ah ah waaw sabar yi foofu la seen alal gi ñu ne ko li mu baatar foofu li mu baatar foofu baatar na ci musibam waaw ganaan ni baatare waaw ah foofu lay def alalam walla ñu dem fële fi fi ñuy def pétanque xam pétanque pétanque walla kii fi ñuy joué ñu ne moom moom moom moom vraiment moom ku baax la moom moo jël xaalisam ñu fay après ñu defar fa bërëb bi fi ñu joué foofu la alalam ji dem de waaye du dem ci yàlla li gis nga léegi-léegi ne nga gis ay dëkkandoo yoo xam ne dañuy am waaye duñu toppatoo miskin yi duñu toppatoo taalibe yi xam kañ lañu soxla taalibe ah suñu bëggee so euh, seen takk takk doom boobu moom fu ñu jaar danañ dañuy woo ñu jàng alxuraan yi danañ leen woo dégg walla tudd danañ leen woo walla ñu deele loolu moom gis nga <laughs> la gis koo xam ne yaayam mooy gaañu yaayam walla baayam moo ñëw ba kii du ko jege taalibe yi ñoom ñoo ñëw ñoom ñoo xam ni ñuy sàngi néew ñoom ñoo xam ni ñu ko julle eh, doo gis benn avocat wala benn gouverneur wala benn ministre wala benn député boo xam ne dañu wax tey néew bi moom lañu xaar pour mu julle ko walla moom moom moom moom moo ñu xaar pour mu sàng ko walla su fekkee ne war nañ ko defal miraas moom moo koy def miraas te ci lañ mujje taalibe yi rek la woo ci taalibe yi ñu ngi leen di soxla ci dëj bi ngénte bi takk yi ci des yépp fàtte nañ leen soo leen diisoon soxla sax walla nga ñëw soxla leen dañuy wax ne nee leen ko néewuma fi am na yoo xam ne sax dañuy fekk ñuy sàng seeni baay walla seeni ndey walla seen frère walla seen sœur

alxuraan tuuti lañ ci jàng walla sax jànguñu ko lu bari waaye seen xol yàlla da ko da leen wulli dana wulli billaay suñuy génne fi di joxe da tiit man am na ci ñoo xam ne mun na mun euh, xam naa leen xam naa leen ci jumaa ji ak leneen waaw suñ lay jox da yaakaar ne dañoo dof walla ñi kii xamul li mu joxe lan la walla ngay laajal ku ku feebar wala borom ordonnance suñu ñuqee ba jox la da yaakaar ne kii noon kii dafa juum loolu dafa am ci jumaa ji am fi ñooñu yàlla na leen yàlla dolli yàlla barkeel seen alal hmm. Hmm. Ah? <laughs> Ah? waaw xam nga dañuy wax ni am na ñoo xam ne religion boobu moom l'islam boobu dañ ko defar pour pauvres yi ñu amul dara soo amul daar nga daa daa dem bokk ci groupe groupe pauvres yi mooy l'islam hmm? xanaa xamoo ne am na koo xam ne waxoon naa ko fi am na koo xam ne li tax mu ñëw ci nit ñi amul dara rek heure bu amee bero am na koo xam ne am moo tax muy ñëw ci nit ñi su ñàkkee dafay beru du ko àttan am na góor yoo xam ne dañoo bëgg fi ñu ne di fa faj soxla fi ñu faj gàcce suñ ko mënulee dañuy daw ba dañuy béru ah bare na koo xam ne day ñëw di courtoiser nit ñi di kii ñu nekk diw ba dafa baax yorugul dara rek amagul dara de moo tax ñu ne ku amul amagul jikko ku amagul dara amagul jikko waaye su demee ba mënal boppam mënal de boppam lépp wàññeeku nag di ñëw ci nit ñi bëgg nag ilif ilif leen ma ñi ko war a ilif ilif leen ma kon nga xam ne ku baax la waaye fekk yorul dara di muy dem di ah, langaamu ay kiyooy déedéet déedéet doo xam mbaa xam bàyyil ba mu mënal boppam nga xam ne dépendre ci kenn mu wàññeeku nag ak alal ji ak lépp mu nangu ñu ilif ko kon ci nga xam ne kii mooy ku baax ñoo xam ne li tax ñu nekk ci kër gi eh, dañu amul rek suñu amee dañu génn léegi ne wuti appartement maris walla ak yooyu neen kër gi dafa bari biir bi ak biir bi boo xam ne ci nga judd ci lañ la waaw jur ba nga toll ni bàyyi ah laa ilaha illa hmm. wallazina gaa yi nga xam ne taxaw ragal nañ yàlla te bàyyi bokkaale fawqahum ñoo ñooy nekk toujours seen kaw yawmal qiyaamat bés penc wallaahu yàlla yarsuq moom de dina wërsëgal man yashaa ku mu soob bi xayri xisaabin te du ko réglé dégg jox la alal mu ne su la neexee nga joxe wala nga téye te ëllëg duma régler duma régler duma régler ak yow dara famnun aw amsik bi xayri hisaab yàlla nee na nas ummatan wahida nit ñi nekkoon nañu benn kurel ñu nekk ci benn diine fa baasallaahu yàlla yónni annabiyiina ay yonent ilayhim jëm ci ñoom nekkoon nañu ci benn kuréel alal imaani faxtalafu bi an amana baadum wa kafar baadum yàlla yónni ay yonent dégg nga ilayhim ci ñoom mubashiriin ñu leen di bëggal man amana bil jannati wa munziriin ñu leen di waar di leen xupp ah, man kafara binnaari képp koo xam ne weddi nga safara nga jëm képp koo xam ne gëm nga ajjana nga jëm yàlla yónni yonent yooyu xam ne loolu moo nekkoon seen mission wa anzala mu wàccee ma ahum ànd ak ñoom na alkitaaba téere bi maana alkutub ay téere bil xaqi yoo xam ne dañu làmboo dëgg li yaxkuma ngir yonent bi mën a atte bàyyi na naa si diggante nit ñi fi maxtalafu loo xam ne dañ doon wuute fii ci mbir diine wa maxtalafa wuute nañu wuute fii ci mbir diine illa lazina ndare gaa yi nga xam ne uutuuhu jox nañ leen téere bi leen joxe téere fa amana baadu wa kafar baadu ñii gëm ñi neen ñii weddi min baadi ma jaatum ginnaaw dikkal na leen albayinaatu ay lay yu bir dëng bax yan ngir beew rek bax yan ngir beewte minal kaafiriin ci yéeféer yi baynahum seen diggante fa hadallahu yàlla jubal na allazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu li maxtalafu liñ doon wuute fii ci lool min bi is minal xaq ci dëgg bi iznihi ci ndigalul borom bi subhanahu wa taala wallahu yàlla yahdi dana jubal man yashaa ku mu soob ila siraatin yam ci yoon mustaqimin wu jub wallahu yàlla yahdi man yashaa ila siraatin mustaqim yàlla day jël ku ko soob mu teg la ci siraatu almustaqim yoon wu jub du ci sa man-man de yàlla rek la neex moo tax soo nekkee jullit boo xam ne day jaamu yàlla santal bu borom bi subhanahu wa taala moo tax benn jullit jullit seen réunion boobu dafa wax ne alhamdulillahi lazi xalaqani musliman walam yajalni kaafiran man di maa ngi sant yàlla bi nga xam ne moo ma def jullit defuma yéeféer yéeféer yi itam yëkkati loxoom mu ne alhamdulillahi lazi xalaqani kaafiran walam yajalni ximaaran man itam maa ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo ma def yéeféer te defuma mbaam mbaam itam yëkkati loxo mu ne alhamdulillahi lazi xalaqani himaran walam yajalni kalban maa ngi sant borom bi nga xamee ne moo ma def mbaam te defuma xaj xaj itam yëkkati loxo alhamdulillahi lazi xalaqani kalban walam yajalni ni maa ngi sant yàlla mu nga xam ne moo ma tag moo ma bind def ma xaj te defuma mbaam xuux mu ne alhamdulillahi allazi xalaqani xinziiran walam yajal nii saariqan maa ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo ma def mbaam xuux ba pare te defuma sàcc sàcc itam yëkkati loxo mu ne maa ngi alhamdulillahi allazi xalaqani saariqan walam yajal nii baxiilan man itam maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma def sàcc te defuma ku nay dégg nga ku nay itam yëkkati loxoom alhamdulilah allazi xalaqani sa baxilan walam yajal ni kaadiban yàlla moo ma sant maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma bind def ma ku nay du ma joxe dara waaye defuma fenkat ma ne pour lu tax parce que fa laanatullahi alal kaazibin yàlla neen rëbbug yàlla mu ngi ci fenkat yi mu tax fen bot moo tax lépp loo xam ne yàlla def na la ko rek bi mahdi fadlihi wa juudihi yàlla la neex li nga ne jullit yi nga nekk sa ndey ak sa baay dafa am lu ñu neexal yàlla pour nga nekk jullit yow ñaata nga ci joxe pour nga nekk jullit yàlla la neex rek yahdi man insha ila siraatin mustaqim waa ki nekk leneen itam ci coobare yàlla la ci coobare yàlla la kon ñaanal ko yàlla na ko yàlla jubal Baye Ibou Sakho dafa doon wax ne mu ne soo meree sa sa sa sa noon te mu nekk yéeféer bu ko yéene dara ne ko yàlla boo tuub rek te ko tuubul dañ lañ la juma dañ la juma ëllëg nee ko yàlla boo tuub rek dégg nga wax ji waaw kon nit lu mu am rek lu mu doon yàlla ko ko def ci coobeeram la su ko neexoon mu def ko leneen yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam in istataata an tabtaxi nafan fi l ardi aw sullaman fi sama fa taatim bi ayatin aya su fekkee ne mën nga wut pax ci suuf nga dugg ci may tëj fël nga dugg ci ba fexe ba indi leen aay benn kéemtaan pour ñu gëm defal te man ànduma ci defal aw man walla nga wut benn kerkeraan mooy escalier fi sama nga dem ci asmaan nga indi fa benn kéemtaan pour gaa yi gëm la te man ànduma ci defal yonent bi nëppi mu ne walaw sha allahu la jama la jamaahum alal huda su neexoon yàlla ñoom ñëpp ma def jubale ñoom ñëpp ma boole leen ci yoonu jub ñoom ñëpp ñu jub waaye man la neex defuma lool ah kay mhm. kon wallahu yàlla yahdi dina jubal man yashaa ku soob ila siraatin mustaqimin fekk jëm ci yoon wu jub am wàll xasi xasibtum ndax da ngeen yaakaar an tadxulul jannata dañ leen di bàyyi rek ah ngeen dugg àjjanna wala maa yaatikum te dikkalu leen ñëwul ci leen masala misaal allazine gaa yi nga xam ne xalaw wéyewoon nañu min qablikum ñi leen jiitu woon minal muminin ci jullit yi ci ay nattu da ngeen yaakaar ne da ngay toog di wax ne jullit laa jullit laa man kay ku gëm yàlla te yàlla du la nattu ba xam li nga wax dëgg la wàllu dëgg ñoo ñi leen jiitu woon massatuhum laaloon na leen albaasa wa dara amoon nañu ay jafe-jafe amoon nañu ay ñàkk ñàkk wa dara ak feebar dëng wa zulzilu ñu daldi leen toroxal sonal leen xataa yaquulu ba wax ar yonentam wal ladina ak gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu ma wa ànd ak moom ñoo xam nga ne ñoom ñëpp la ñu mujjee wax matee nasrullah matee nasrullah kañ la ndimbal yàlla di ñëw am demee ba ay yonente ak ay jullit wax kañ la yàlla di indi ndimbal kon sonn nañ yàlla ne alaa dema ne inna nasarallahi ndimbala yàlla inna nasrallahi ndimbaluk yàlla qaribun aji jege la ndax yàlla ci boppam dafa jege xaaj malik radiallahu anhu wax na ci zajrul qulub wax lawla sukunul alamina li gayrihi la raw la raaw wal wal ilaahu qaribu su dul woon jeng bi nit ñi jeng jëm ci kudul yàlla la raaw du kon dinañ gis yàlla iyaanan ci jàkkaar la ndax wal ilaahu yàlla qaribun aji jege la su dul woon nit ñi dañu jeng dem ci ku dul yàlla ci seen wax ci seen jëf ci seen dëgg ci seen seen làmmiñ ci leen lépp luñu lu ñu wax rek rax ci leneen lu dul yàlla kon danañ gis su fekkee ne yàlla kese lañuy ñu jaamu yàlla kese la ñuy woo yàlla kese la ñu déglu seen bët ak seen nopp seen bakkan seen lépp yàlla lañ wommat jox ko ko la raaw kon danañ ko gis ndax wal ilaahu qaribu yàlla aji jege la waaye euh, man ak yéen man ak yow balaa ñuy génn ci mën na ci wax ji sax nga dugal ci loo xam ne du yàlla te loo dugal lu dul yàlla yàlla génn yàlla génn kon moo tax du ñu gis yàlla wax jooju jeex yàlla ne yasaluunaka ñu ngi leen laaj Muhammad sallallahu gaa yi ñu ngi def délégation Omar ibnu Jamuh boroom alal la woon ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko moo yonent bi dama lay laaj lan laay dépensé ci sama alal lan laay dundale ak kan laay dundal hmm? lan laa jël ci sama alal dundale ko ak su ma ko jëlee kan laay dundal kan ban personne la yàlla ne qul waxal lahum ñeen leen ñi lay laaj maa anfaqtum lépp loo xam nge dundale ngeen ko dépensé ngeen ko min xayrin ci alal falil waalidaani na ngeen tàmbalee ci seeni waajur wal aqrabiina ak ñi leen jege mooy seen mbokk yi jege sa frère sa sœur sa tante sa bàjjan ak yu mel noonu ak yu mel en tout cas loo lépp looy def balaa muy jàll jékki ko ci say bokk boo pare waaw soo demee ci àll bi di joxe alal te say bokk sonn te te dëkk ak yow walla bokk ak yow ñu am ay jafe-jafe dimbaliwu leen te di nga dem ci yeneen quartier walla fekk nga ngay dimbali kon yow dafa mel ni sàmba àllaar nga waaye te nga waroon tàmbale ci say bokk loolu la yàlla wax wala aqrabin su ñooñu weesoo wal yataama jirim yi yataama mooy jirim yi nga xam ne baayam dafa génn àddina baayam dafa génn àddina wal masaakin ñoom ñooy troisième position miskin yi nga jàppale leen wabni sabil mooy quatrième position wabni sabil nag doomu yoon doomu yoon mooy ki nga xamee dafa tukki jóge Mali walla jóge Gambie wala Mauritanie wala Côte d'Ivoire wala fu mu fu mu mënta jóge rek walla Bénin mu ñëw ci réew mi mu tag fii nag am jafe-jafe am jafe-jafe doonte fi mu jóge borom alal la foofu waaye mënu ci jot fii moom tumaranke na fi kooku bu dee azaka bu dee sarax bu dee ndimbal nañ ko ko jox waaw boobu ni sabil mooy boobu ni sabil dégg nga boobu ni sabil yàlla ne nag wa ma tafalu lépp loo xam ne jëf ngeen ko min xayrin ci yiw infaqin aw xayrihi dépenser seen alal wala lu dul loolu wala wax ju baax sax gis ñaar ñoo xam ne dañoo féewaloo sax nga jubale leen ci la bokk wax ba pénc mi jig euh, jag ci la bokk ah kon su ngeen ko defa fa inna yàlla alimun aji xam la bihi ci li ngeen jëf dana leen ko fay wax jooju jeex yàlla ne kutiba farataal nañu aleykum ci yéen alqitaalu xeex ak yéefér yi léegi amul won leen ginnaaw amul euh, dëddu leen amul ah? bañ leen topp déedéet léegi ba farataal nañu aleykum ci yéen alqitaalu xeex ak yéefér yi te wowaa loo xeex ak ñoom sax kurxun lu ngeen sibla lu ngeen ragal la lakum ñeel leen kurxun li ñu ragal la lakum ñeel leen dégg waaye wa asaa amaan na an takrahu ngeen bañ shay an dara mooy xeex bi wa taw te te loolu ngeen bañ xayrun moo gën lakum ñeel leen wa asaa amaan na an tuxibu ngeen bëgg shay an dara te wa li ngeen bëgg sharrun moo ay la sharrun lu bon la lakum ñeel leen xamu lu tax ci dara te wallaahu yàlla yaalamu aji xam la maa huwa xayrun lakum wa antum la taalamun yàlla moo xam li baax ci yéen ak li bon ci yéen te wa antum yéen laa taalamun xamu ci parce que loolu dafa fàddu xaybu la wax jooju jeex yàlla neen yasalunaka ñu ngi delluwaat di la laajaat ani shahril xaraami ci weer bi nga xam ne dañu araamal qitaalin fiihi xeex ak weer ci weer wi qul waxal yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen qitaalun fiihi xeex ci weer yi nga xam ne dañ dañ dañu araamal xeex ci weer boobu azimun wisran azimu wisran lu rëy la ci bàkkaar waaye wasaddun itam tere nit ñi añ sabilillahi ñu digg ci dugg ci diine yàlla wa kufrun bihi ak weddi yàlla wa wal masjid wa masjidil haram tere nit ñi dugg kaaba ga wala génne leen fa raaju ahlihi génne ñooñu dëkk bi minhu ci dëkk bi wa hum annabi sallallahu alayhi wa sallam wal muminuun génne gi ngeen génne jullit yi yonent bi sallallahu alayhi ak jullit yi ci ci màkka loolu kay akbaru moo gën a rëy bàkkaar indallaa fa yàlla te wal fitnatu na ngeen xam ne maa maa ngi leen yëgal ne wal fitnatu bàkkaar wal fitnatu bokkaale minkum ci yéen bokkaale gi ngeen di bokkaale ak yàlla akbaru moo gën a rëy bàkkaar minal qatli ci xeex ci weer woo xam ne yàlla araamal ku ci xeex wala yazaaluuna du ñu deñ mukk yuqaatiluunakum ñuy xeex ak yéen yéen jullit yi yeferi di xex ak yéen xataa yaruddukum mbate ñu delloo len an dinukum ci sen di diine ngeen delloo nak yefer in istataaw in bi nak in istataaw chartiya suñu ko atene wa man yartadit kep ko xamne dafa murtad menkum ci yéen an diini bàyyi diinam fo yamut mu dal di de wo huwa moom kaafirun la fa ulaika ñoñu xabitat mabna amalum sen jëf fi dunya wal akhirati ci adina ak laaxir wa ulaaki ñooñu asxaabu naari ñooñ ñooñu safar hum ñoom fiha ci safar xaalidun la ñuy sax ba abadal abidin kon ñu teg fi suñu baaraam ñaan yàlla yàlla na yàlla def ci ñu dégg ak topp defal ñu ramadaan mubaarak boo xam ne dafay ànd ak yumna wal defal ñu ko defal ko mboolem jullit ñu ngi itam sant Euh, ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy siivre en euh, TV di ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla euh, di ñaan yàlla yàlla def ci ñun dégg ak cop topp bi jaay Seydu sallallahu alayhi wa sallam di gàntañ lu nag ci borom xam-xam yi lépp loo xam ne jubu ci walla juum nañu ci ñu jëggal ñu ñu xam ne rek ah, nit moo motul نيو خم خم لا أك فصاحة نون كو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته